ñaaw na ba fa ñaaw yam loolu laa dund màkk dund leneen loolu laa dund Medina dund naa leneen màkkatal mu karama